télévision Futur Média mbokk yi ànd ak ñun ci xibaar yi marax gi daleen ak jàmm gannaaw bañ leen nuyoo ñu dikk ak yéen ci li gën a ci xibaar yi euh, di leen jaajëfal ci ànd bi ak euh, xibaar yi télévision Futur Média dañ koy tàmbale ak Cambérène VDN bi nga xam ne nag Ageroute ñu ngi koy liggéey euh, te ne dañ koy yokk la ñu cay yokk dafa laalaale xabru bu Seydina Limamou Laye loolu nag merloo na ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee foofa ca jàmmalaay li ñu wax nag mooy bii moom du jàll du ñu benn yoon ñuy xotti war may jaarale ab tali euh, bay laal lenn ci ab xarbu euh, xabrom loolu nag dañ ci déglu ma Makodou Ndiaye moom mooy vice président bu mouvement jàmmalaay Salif Sow ak As Malick Diop ñoo indi ay kàddoom. ak euh, communauté bi ñi nga xam ne tamit mbir mi ñor na leen waa déclaration bi li ko waral mooy rek wax dëgg yàlla lu ëpp daal tuuru parce comme ni ngeen ko gisee tey jii nii. ci boo ñëwee ci mausolée Seydina Issa di nga gis ni naqar bu rëy am na ci communauté Layène parce que ñun Seydina Issa Rouhou Laye moom la ñu yaakaar àddina ak alaaxira te fii bi mu fiy nekk depuis 1914 la toxal Cambérène mu nekk fii mu wut titre foncier bi depuis euh, temps français armée temps français mu nekk en 1943 Cambérène nekk titre foncier tey boo xoolee état bi ñëw na fii ne daf fiy defar tëli. mais amul bi mu benn waxtaan wala dialogue boo xam ni état bi def nag muy un manque de respect total boo gisee travaux yi ngay gis nii dédommagé nañ ñëpp ba mu des mausolée bi parce que ñoom nee nañ DPN la mais li nga xam ni moo gën a garaaw mooy depuis fan yi yëpp ñoo ngi constaté seeni machines yi dugg ci biir mausolée ay Issa di tibb suuf si di ko jaay même boo demee fële di nga gis am na yoo xam dañ ko jaay ba démb indi na problème fii donc dañu empiété domaine euh, privé bu mausolée Seydina Issa boo leen xoolee ñoom naka la Macky Sall ak gouvernement ak waa Ageroute mën a ñëw dugg ci biir mausolée Seydina Issa ne dañuy wàññi espace bi loolu yaakaar naa ni lu première la ci histoire mosula am kenn mosul gis li moom te ñemewu ko def ci benn communauté religieuse Seydina Issa fàkk place am nga ñëw di ko jël te amul benn discussion boo xam ni def nañ mu ñëw boo ngeen ko xoolee marque marque yi nga xam ni ñoom marqué nañ ko ne dañuy jël plus de xaw ma 14 ci biir esplanade bi loolu nekk loo xam ne lu ñaaw suuf si tamit amul kenn koo xam ne ci communauté laayeen soxol sedd na parce que yaa ngi gis ñu ngi tibb suuf si dugg ci ma di ko liggéey liggéey bu ñaaw te ñi nga xam ni xalifa bi jiital na leen ku mel ni man teg ma ci place bi ah amul benn waxtaan woo xam ne def nañ ko mu nekk nag lu metti li ma yëgal laayeen yi la communauté laayeen laay jikko waxal di yëgal kilifa laayeen yi ne leen état bi daal jóg na dugg ci biir jàmmalaay bi pour wàññi kon nag laayeen bu ne na jël responsabilité am diggante ak yàlla digganteem ak bàyyi laay diggante bi seen sax parce que loolu kenn mësu ko gis ci àddina beneen bi ci des may wax waa Azerut Euh, muy kàddu yu tukkee ci Malick euh, Diop kon moom moo wax ci kàllaamay wolof kii di Makodou Ndiaye njaay dingeen ko dégg ci kalaamay tubaab euh, jàpp leen ko kon Ageroute ñoom ñoo bëgg defar tali laal ca fell lenn ci xabru ba nga xam ni foofee la Seydina Limaamu Laay tëdd ñu déglu woon ci kon kooku di Malick Diop ci wàllu politique waa Macky 2012 ñoom dañ nañu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi seen janoo boobu ñu doon seq nag ak journaliste yi daanaka ñaari janoo la woon sax ndax xaajoo gu am ci seen biir Fante Siro ñi Abdoulaye fay la ñu àndal ñi ci des Moustapha Fall Thié eh, xëccoo bu metti nag moo doxoon ci seen biir faatu Bintou Konté ak Diafara Ba ñoo fa nekkoon. mu doy waar fii ci siège coalition benn Bokk Yaakaar coalition Macky 2012 dañ doon xëccoo maanaam sax dem nañ sax bay xeex ca biir siège bële ba ca cappaandaw ga sax ñaari conférence de presse ñu mujj organisé mu di loo xam ne coordonnateur bi di Moustapha Fall Thié moo ngi koy ñàkkal solo. ci xew léegi duma ma si wax. d'abord commandé wu ma scène bi contrôlé wu ma ko ni mu leen bettee la ma bettee neexuma itam condamné naa ko donc seen boobu moom loolu laa ci tontu. ñi nga xam ne ñoom ñooy naataango Abdoulaye Faye nag ñoom ñi ñuy xamal ni coalition Macky 2012 dafa am problème mu coordonnateur Moustapha Fall Thié dafa faa war a jugee ngir ñu mun a réunir li nga xam ne moom mooy vraie famille coalition Macky 2012. li lu ko waral bii Macky 2012. du coowu dara dul coowu kuréelu Macky 2012 du muy doxee leader yu bari ñëwatuñu ndax coalition bi nu muy doxee coordination bi baaxul bu weesoo loolu ñu gis ne élection législative yi ñu dëgmal bis nañ ñu bokk si ñoo xam ne dañoo mujj a dem créer liste parallèle alors que ñooñu bu ñu waxtaanoon ak ñoom loolu mun na bañ a am. moom Moustapha Fall ci sax dafa fas nii amal ab benn mission mission d' apaisement boo xam ne dana tax képp koo xam ne da nga nekkoon ab frustré ñu delloo waat la ci li nga xam ne moo di coalition benn Bokk Yaakaar Abdoulaye Faye ne balaa ngaa bale buntu kër jàmbur te ngaa lijjanti mbóot mi ne sa kër ba pare. suñu mission mooy parti ak yeneen parti ak fu mu mënti doon. dinañ jóg soltu tànk euh, sol suñ dàll fépp fu frisé yi am am na dëkk yuñ ciblé yoo xam ne yàgg nañ leen ciblé d'ailleurs ñu dem fa wax ak ñoom. Euh, nit ñi frustré Macky démb bu demee ci département naka la mun a waxtaanee ñu bokk benn tanoo xam ne seen problème def leen eh, ñoom ñoom ñoom la concerné moi je pense que Macky 2012 mu war a njëkk a def mooy mu régler problème Macky 2012 ba pare à l'interne et son fonctionnement te loolu solution bi mooy ñu supprimer la coordination. gannaaw Macky 2012 ci Benno Bokk Yaakaar la ñuy dikk dal foofee itam coow la fa am muy ñi nga xam ni dañoo daal di ngat lii di investiture yi ba tax ñuy dagg seen i bopp Macky Sall di leen daq euh, ku ci mel ni Maguette Ngom wala Ansoumana Danfa keneen ki nga xam ni moo ci mujj di Ali Sega Camara loolu nag ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci wàllu politique ku ci mel ni Ousmane Ba di sociologue kon moom jàpp na ni nii Macky Sall di doxale dafay jël ay responsabilité am euh, kii di Zahra Iyane Thiam bu APR gis nag ni euh, yooyu ñu jàppee ay sanctions li nga xam ni moo xew ci investiture yi Alassane Ba ak jafara Ba. jiitalu coalition Benno Bokk Yaakaar génne yat wi nag ginnaaw ay contestation yu am ci choix yu mu def professeur Ousmane Ba andi si ñaari njàngat. mënuñu comprendre parfois du point de vue principiel si ay principe nga jox nit ki baat. effectivement mu mu tànnal la après nga ñëw di contester mun nañ ko comprendre comme mun nañ ko bañ a comprendre ba nag aussi il faut que ñu accepter parce que depuis le début ñoom ñoo ko joxoon kiitis donc maintenant il faut que ñu accepter ñu xam ne effectivement ñi politique noonu lay doxee aussi pour ministre conseiller bu jiit réew mi nag waruñu jaawale sanction yi ak investiture yi comme ba mu leen koy takkal laajul kenn bu leen koy tekkil aussi ci coobareem moom mooy seet lu tax mu def ko loolu waruñu ko takkale ay investiture léegi dañu seetlu ne Sénégal waxtu élection bu jot rek ñépp candidat lañ naa am nag wala naa bokk bu bokkee ci contexte boo xam ne dañu bokk ci coalition boo xam ne ñiy laaj fuuf moo ëpp la ñuy joxe faw coow am ñenn ñi mer ñeneen ñi jàpp ne jaaduwut choix yu ñu def ay sanction nag am na yan conséquence ci jamono ji nag ci lu jëm ci élection yi ndax ay vote sanction dana am. ñuy waxti woote vote sanction ban dayoo la ñu am est-ce que am nañu boo tax bu tax ñuy wax ni vote sanction. li ëpp solo balaa ñuy yegg ci vote sanction boobu mooy ñu dalal xelu nit ñi te loolu euh, dox la wax la liggéey la. loolu dinañ ci jëm. ñi ci bëri nag seen xol neexul ci choix yu njiitalu coalition bi def ban taxawaay nag la coalition Benno Bokk Yaakaar nar am bu ñu génnee ci législative yi. est-ce que day am rebojoo ci biir coalition bi est-ce que coalition bi day fënax ou bien day nasax est-ce que ànd boobu dina continuer yaakaar naa ne après législative effectivement dinañ jox beneen doxalin ci ci wàllu politique. bu leen wóoroon ne dogal yi am ci président Macky Sall la jóge ci moom kott dong kese kon su boobaa coow li du bari. mais bu seen xel jàppee ne xëy na am na ñeneen ñoo xam ne dañ ci dugal seen loxo ba ñoom ñu teg leen toor moo tax ñuy manifeste loolu nag defi bu rëy la waxtaan bu xóot la investiture yi dama jàpp ci Benno Bokk Yaakaar wane na yeneen xalaat yu ñu war a def suñu biir ndox mu doon lu jafe lool ca ñaari tari ak ca Grand Dakar euh, ñu ci bëri gis ko daanaka dafay jafe lool ci ñoom rawatina ci jamono weeru koor gi nga xam ni ci lañu ñu nekk ñaari ayu bës ngi ni teguñu gët ndox seen robinet daanaka dara ci ndox génn fa euh, te terewul seen i facture bu dikkee dafay cher lool Pape Fara ñi nga ak Younous jaata ñoo fa dem reportage. ay paan ak ay bidon yoo xam ne dañ cee def ndox ngir mën a wutu robinet yi nga xam ne dañuy tëj saa su ne. ñu dëkkee ca quartier ñaari tali ak Grand Dakar ay jafe-jafe yu métti la ñuy dund faaw nga xaar ay heure ngir nag gis toq ndox ci robinet bi. dama yeewu ay 3 heures du matin toog di naafile pour patiente pour robinet bi am ndox ba asamaan set duma am dara oto bii lay yore def samay bidon di wëndeel fu ma gisam ndox rek. ma duy fa dugg ci école bi wala kër gi may liggéey soit ma dem ba tey maa ngi dem ba euh, imprimerie Montero bi minuit la ñuy door am ndox wala deux heures du matin wala trois heures bis bu nekk na mu coupé suñu dusi bu seen duñu am lu ñu sangoo du ñu am lu ñu defee dara nit bu amul ndox doo mën a topp yàlla doo mën a sangu sangu set doo mën a jàpp doo mën a def dara doo sa kër du mën a set wér-gu-yaram it doo ko am du dëgg. fii nag robinet mbedd yi moo nekk li nga xam ne moo di dimbali métti lool nga yenu paan wala yor bidon ci weeru koor bi. vraiment boole xiif ak mar ak di yëkkati ndox ay di di di bidon de vingt litres vraiment métti na trop quoi. dañuy yenu ba sonn boo feebaree sa nga yenu. billaay boo ba léegi sa walee gis nga li ma taaj nii damaa root root ba bëgg de dee paan bu ne fukki dërëm lañ koy jëndee. nit ñi balaa ñuy am ndox ay 2 heures du matin 4 heures du matin la ñu ñu di root te loolu moom du yoon nañu ñu Grand Dakar am bëgg di yendu ay paan ak ay ndox di ko wuti jee te daa metti ah ñi amul ndox de fii la ñu leen di leen jaay. seetlu nga client yi mu gën a yokk. ah client yi kay moom dinañu ñëw ndax moom ku amul ndox moom kii amul ndox day ñëw di ko wut ndox rek. naam robine yi dañu tëj lu bëri wala di xel tuuti teewul facture ndox yi di gën a cher. jigéen ñi di ko ñaawlu. dafa bari xaalis bi dafa bari te tuuti lay xel facture bi bari xaalis bi bari loolu tam loo leen ci wax yéen tamit. mu nekk bërëb boo xam ne li ñuy soxla ci ndox dafa bëri yemoo ko tàngaay bu métti askan wa dëkkee nag ca ñaari tali Grand Dakar ay jafe-jafe yu métti la ñu am ngir am ndox bi nga xam ne moom la dundee. Euh, dossier bi leen di laak euh, télévision Futur Média rédaction Ibou Diouf moom moo ñu ko defal dafa aju nag ci doomu Sénégal yi nekk ca Libye euh, te ñu teg leen fa loxo di laaj seeni i mbokk daanaka lu toll ci 1000 euros muy koppar yoo xam ni koppar yu bëri la daanaka genn wàllu million ak lu toftalu la ñu leen di laaj ngir mën leen bàyyi lu ko mooy ñu fàtt leen loolu nag tax na ba ñuy sàkku ci état bu Sénégal ñu jël ci seen responsabilité Ibou Diouf Younous Diatta ci dossier. ñii ñëpp ñu teg leen loxo fi nga xamante ne rek ñu bëri si ñoom fekk baax fi ci senegal ñu amoon yéene rek dem fi nga xamante ne mooy Europe jaarale ko fi nga xam ne mooy libi ñu teg leen loxo ci réew moomee nag li ci gën a métti mooy ñu leen di laaj xaalis. situation bu métti la ñuy dund tey ak jeunes yi nga xam ne dañuy jóge Sénégal di jaar par Mali jaar Burkina Faso jaar Niger pour yegg si Libye. gis nañu ne bu ñu yegg see libi comme nekkatul un état organisé c'est un état en conflit force ya fa nekk ku ci nekk ci ñoom jàpp na ni jeune migrant bi di traversé nii am na lu mu yor ci poosam. Euh, di leen dóor di leen wax ni ñu woo seen di woo seeni famille au Sénégal euh, di leen laaj rançon euh, rançon bi ñu ngi laaj par personne six cent mille CFA environ mille dollars di menacer ni leen su xaalis boobu duggul. dans les heures qui viennent ñoom dinañ leen faat dinañ leen exécuter. rançon boobu ñu koy yónnee ñoom ci la ñuy bugg di dund c'est des pratiques anti monde. te li koy indi mooy réseau de passeurs yi nga xamante ne ñooy organiser départ bi depuis le Sénégal. seen i njaboot nekk si njaqare réewu Sénégal moom daanaka bëriwul ñim ci mën a waxtaanal ci loolu nag ñi nga xamante ne ñoo jiite direction des Sénégalais de l'extérieur ak Horizon sans frontières. soobu ci xeex bi. parce que tey jii suñu demee ba ay doomu sénégalais di dee ci bitim réew di dee ci gaal yi suñu demee ba ñu leen jàpp ni dañu leen di exécuter je crois que tey war na pousser ñi yore réew mi tey ñu toogaat remettre seen cause remettre en cause leur gestion dans la problématique de l'emploi. que Libye tey nekkatul état boo xam mën nga wax ak moom. amatuñ fa ambassade amatuñ fa consulat association sénégalais yi ñoo fa nekk ci ñoom la ñuy appuyé à part l'organisation internationale pour les migrations. ana naka la ñu def ngir dàkkal li nga xamante ne rek mooy jur jëye yi doomu Sénégal yi nekk ci ay jafe-jafe fële ca Libye. le ministère de l'intérieur wax naa ko léegi ci nasaraan def na liggéey bu am solo ba tey am na ay réseau yu bari yoo xamante ne démantelé lañu ba démb am na réseau ñaar ñoo xamante ne jot nañ leen ci arrêté. bon su loolu passé nag euh, je crois que il est temps ci dëkk bi euh, ñu xoolaat euh, la problématique de l'emploi des jeunes loolu moo indi lii yépp il faut que ñu changé waat doxalin. mais loolu rek doyul il faut que ñu continuer sensibilisation bi pour que ñu xam ni président de la république programme yeeg projet yi mu teg pour les jeunes sénégalais mën nga cee gagner sa dund ba pare nga voyager paisiblement sans pour autant nga risquer sa dund. nguur Sénégal jamono ji ñu koy woo rek ngir mu indi saafara ci li nga xamante ne. moom la doomam yooyee di dund maanaam fexe ba jëlee leen ci prison yi nekk fële ci Libye delloosi leen ci réew mi. rax si dolli fexe ba ndaw yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal. ñu am ci lu ñu jàpp ba seen xel du dem ci tukki. Ibou Diouf la woon ci dossier bi mu leen tànnal ni ki tey ji aju woon ci doomu Sénégal yey dund euh, mitit foofa ca Libye yemoo mbokk yàq fi ñu tàggoo ak yéen mu nekkoon xibaar yi marax yi ak télévision Futur Média ñu leen di ñaanal ndogu jàmm di leen wax ni xibaar yi ci juróom-ñetti waxtu ci tubaab di ngeen ci ànd ak Léa Ndiaye jërë ngeen jëf.